alhamdulillahi mu dilgiti wa safari man kaana fi xadarin aw kaana fi safari aoudu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu ala sayidina muhammadin almabuusi rahmatan lilaalamin wa ala alihi wa saxaabatihi wa taabiin mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi am mbégte di teewaat fii ci e, ndajey ajuma yi nga xam ne daara ji da ko baaxoo di ko amal fukki fan juróom yu nekk te jubluwaay bi du ludul e, tënku ci liggéeyal sëriñ bi ni xam ne noonu la ko tànnee fexe cee nàmm sunu bopp nàmm ci njaboot bi loolu mooy jubluwaay bi di ñaan yàlla defal na ci tawfeex tey nag xam ngeen ne comme niñ ko baaxoo rek ci ndaje yi daan amal di seet ajjuma ju nekk wala fukki fan ak juróom yi nekk di ci def benn thème benn waxtaan boo xam ne dafa am boroom xam-xam buñ ciy dalal ah, tey nag kiñ ci tànn euh, daanaka du jar ñu naan kii la ndax ñëpp xam nañ ko te euh, ku nëbbu la ci gis-gis waaye boroom xam-xam la bu ñuy déglu bu ñu ràññee xam-xamam yi ñu bari nawlu nañ ko muy Sëriñ Babacar yore ñaari cër di jawriñu daara ji di imaam euh, tey nag ñu tànnoon tomb bu am solo boo xam ne daanaka foo gis nit muy dem rek bu loolu taxut jóg rek daanaka tertaange lay am ci ay mbiram tomb tomb boobu nag wala waxtaan woowu ñu ngi ko euh, aj tey ci xam-xam ak solo si nga xam ne am na ko muy ahamiyatul ilm te loolu defe naa euh, loolu defe naa moom buñ ko waxee rek euh, ñépp dañuy daal di sawar ci teewlu ko muy xam-xam ak solo si nga xam ne am na ko ndax xam-xam li ci sëriñ bi wax rek ne na mbindeef yi ñi ngi rawaante ci xam-xam mbindeef yi ñi ngi rawaante ci xam-xam euh, kon xam-xam kenn mënu ko ñàkk tey rawatina jamono ji nga xam ne jamono ji jaxasoo na kenn ku nekk wut foo xam ne fa ngay wuti tey lii nga xam ne mooy solo kenn ku ci nekk du lu xam-xam kon xam-xam mooy li mën a defar adduna bi mooy li mën a defar it àllaaxira biñ ko laa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nan la nit di def ba am e, njariñ ci àddina maanaam texe àddina nañ lañ koy amee mu ne leen wut leen xam-xam ñu ne ko texe àllaaxira mu ne xam-xam ñu ne ko ñaari texe yépp mu ne leen xam-xam kon xam-xam fépp foo xam ne ñu ngi koy waxtaane mat naa bàyyi xel mat naa dégg rawatina ki nga xam ne moom lañ tànn tey mu nar noo defal waxtaan woo muy ay sëriñ Babacar di jëwri ji daara bi kon ñu ngi ñaan suñ borom defal ko tawfiq sëriñ Babacar bismillah bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaam mabuus ala rasulillahi mabuus rahmatan lil alamin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sallam taslima mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi ziyaare mboolem ñi fi teew di leen ñaanal tawfiq di ko ñaanal suñu bopp di leen sargal di leen ndokkeel xam naa tey waxtaan wi nga xam ne moom lañu tànn ngir waxtaan ko tomb bu naqaree waxtaane la waaye bu neexee waxtaane la mooy xam-xam ak njariñ yi mu am ci dund ak doomu aadama wala ci dund rek ndax xam-xam mbooloom lu nekk ci kaw suuf te am ak ruur danga koy aajowoo moo tax ñu ne xam-xam lu war la ci ak dund ñetti tomb lañ ko def beneen bi si des ñu ne xam-xam mënta ñàkk ci ab dund beneen bi si des ñu ne xam-xam kat sàpp ko am na ay jafe-jafe waaye am na nag ay yoon yu ñu mën a jaar ba mucc ci jafe-jafe yooyu kon foofu lañ tënk waxtaanu tey mu mel ni ñaari tomb yi nag moom dañuy jaar jàll rek ndax dañ cee wax waxati ci ñu bari wax ci te daanaka duñ ubbee sax doy na sëkk pour wax ci dund aadama mënta ñàkk ci képp kuy dund nekk ci kaw suuf te am ak ruux loolu liñ ci njëkk a jël euh, tegtal mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne dañ ko yónni ngir mu nekk rahmatan lil alamin waaye ngir mu nekk mu tammil axlaaqil makaarimal axlaaq dañ ko yónni ngir mu nekk yërmande ci kaw jullit yi waaye mu doon koo xam ne day mottali jikko yu rafet yi nga xam ne te ñàkk doomu aadama yu am ko ngir ak dundam mën a yéwén biñ koy yónni jumtukaay biñ ko njëkk a jox pour mu mën a taxawal ak liggéeyam mooy xam-xam ndax suñ borom da ne iqra jàngal jàngal ba xam fi nga jëm jàngal ba xam fi nga war a mën a jëmale ñi xam ne ñoom ngay woo kon loolu rek doy na si ne jàng moom waajib la mënta ñàkk lépp lu nit def rek xam-xam da ci aajowoo li tax mën a nag ajuwul rek si doomu aadama waaye dafa aju ci képp ku am ak ruu mooy képp koo xam ne da am ak ruu dina ci kaw suuf rek la ngay ittewoo xam gi nga ko xam mooy tax nga mën koo jëfee ba ci bàyyi may bàyyi may lu mu ñàkk ñàkkam xel fi na xam na nu ñuy def ba rëdd xam na nu ñuy def ba naan su maree xam nga li ñuy def wane ne daa mar ba nañ ko jox mu naan buñ ko joxee am na xam-xam mën a naan doomu aadama bu juddoo dina def ay pexe sa lu mu nekk nekk xale bu bu xiifee dina am pexe lu mu def ba wane ne dafa xiif wala dafa mar wala lu ko dar dal mu mën a jooy wala mu def ay action bañ xam ne am na lu mu soxla kon loolu xam-xam la boo xam ne da ko judduwaale sama borom xamal ko ko liy tegte la nga xam ne ku ñëw di nga àndaale xam sax mooy doomu aadama buy juddu ni nga xam ne andi na bakkan moo day jooy jooy googu ñuy ci beneen aalam muy mu mel ne loolu aw naqar la loolu ci lay wane wane ne am na aw naqar di jooy kon loolu rek ak xam-xam la te àddina bi bala mu see lekk wala mu naan dañ ko koy jàngal kenn ku ne sa yaay moo nekk ci première mudarrisa maanaam ca premier ustaas kon ni ko ne si yaay moo moo ko doon moo la jàngal lu bare bare bari ba nga xam ne ràññee nekk ci kër gi léegi waa kër gi lépp doon say ustaas nag ni ñuy waxee nga koy xool di ko jàng ni ñuy jëfee lépp nga koy xool ci ñoom di ko jàng ba fekk ngay war a dem ci école bi pour jàng kon loolu rek wane na xam-xam mënta ñàkk ñaareel bi mooy waajib doroor yi la mënta ñàkk bu njëkk bi mooy waajib la ndax yàlla moo ko digle te ku ko defut doo mën a dund ci kaw suuf waaye gëróorloo tam mënta ñàkk li tax mënta ñàkk sëriñ bi jungu na ko dana waalam bi ann al ilma wal amal huma wasilata saadati ajal na ne pour nga dund ci kaw suuf dund boo xam ne nii gu tege fi mu war a tege mu saada nga am ko yomal xiyaam dara mënu la koo may lu ma nga am xam-xam te kenn ku ñi jàng ñi jàng arab yaakaar naa xam nañu huma jooju taxawaay bu ñu taxawa taxawe mooy ñoom ñaar dong ñoo la ko mën a may pour nga am dundal àddina ak dundal àllaaxira bu tege ci yoon nee na xam ñoom xam-xam ak jëfe xam-xam dong moo la ko mën a may mu mel ni nag bu ñu waxee xam-xam rek mënuñu see ñàkk laaf jëfe xam-xam ndax loolu moo ngértali kon kenn kon xam na ne ku xam jëf rek moo si mën a tege waaye kenn mënta jëf te am ko xam wala bu boobaat na ko sëriñ bi wax rek day mujj nekk xaba an mansuur mel ne bépp jëf boo xam ne nii àndut ak xam-xam moom nga jël pënd wesaare ko ñoo am benn jeexantal bu muy def bu am kon ñaar yooyu moo tax ma ne daanaka mën nañu dañ ciy jaar jàll mooy xam gi xam ne xam-xam mënta ñàkk wala xam ko gi xam ne xam-xam waajib la ak xam-xam xam gi ñu xam ne mënta ñàkk ndax mënta ñàkk gi mooy comme si lañ mën a amee saadat daara yi il faut nit ki xam te gis nañu même ñi nga xam ne sax bu ñu ay nit xam-xam bi ñu xam moo leen di may ñu mën a dund ci kaw suuf waaye comme si amut da am jafe-jafe gis nga na ma yàlla jégal wala na ñaa ngi jégalu si baar bi nga xam ne dañu tàggoog seen xel ni kenn ku ne xam ne bu saada ndax dañoo tàggoog seen xel nga xam ne amatuñu xam-xam dara daanaka dañu daal di ñàkk saada waaye ñi nga xam ne ñoo ànd ak seen xel doonte jànguñu ci ay téere waaye jàng yi ñu jàng ci nit ñi ba xam leen lu nekk la ca baax ak lu ca bon loolu moo leen sawee ba seen dund mën a yema lu bon bon mu yema maay kon euh, ñaar ci la dem ndax day mel ni nit ki feebar na li ci gën a am solo moom xam ne feebar na bu ñu ko xamee ba noppi loolu moom jot ndax ñëpp xam ne ne feebar nañu waaye nag lu ko feebar la seet ak lu koy faj kon xam nañ ne xam-xam moom mënta ñàkk tey lu war la nan lañ mën a def nag ba am ko ak gàllankoor yi nga xam ne moo nekk suñ diggante ñu am ko yooyu fi mu ne moo itteel moo tax yooyu ci li ñuy gën a insister daal foofu la ñuy gën a insister moom nan lañ mën a def ba bëtt gàllankoor yi ba xam-xam mën a am ñu ne xam-xam lu am ay gàllankoor la bi ci jiitu moom iblis mi nga xam ne moom yéenewut nit wala doomu aadama bu nekkal jullit yéenewu ko lu baax moom moo si njëkk a teg ak tànkam ngir xam-xam moom kenn du ko am rawatina xam-xam bi nga xam ne day xamal nit ki suñu koo jàmm seen bi junj na lu noonu wa min wa min madaratin أغزاه الباخل ليديم فيضا صد المريدين عن التعلم لوجه العليم الأعلم لوجه ربنا العليم الأعلم mu ne bokk na ci pexe iblis ci boppam moom mooy ki nga xam ne moo njëkk a ñëw xam ne xam-xam moo mën a nit may nit ki saadatu daaray mi mu ñëw teg ci ab tànkam nëbb ko doomu aadama yi teg ci ay ndëgg sarax di leen ko jafeel lool di leen ko ñàkkal loo solo ba di ci ñi nga xam ne dañu bëgg àgg seen borom am na suñu dañuy jàpp ne jërut ñuy jàng mën nañu àgg seen borom te jërut ñuy jàng te loolu lépp pexey seytaane la wala dinañ jàng sax waaye njàng mu jër fa xóotal loolu lépp pexey seytaane la ndax iblis xam ne képp ku jàng ba xam kan moom iblis xam dëgg sarax yi muy teg ak boo si jaaree fan lay musa euh, fan lay mujjëm moom da nga daal mucc si ay mbiram waaye soo ko deful nag pour mu nax la lu yàqu lay doon moo tax première xeex bi mu def mooy daa fexe ba ñëpp ñi nga xam ne seen xel dem na ci bëgg dem ci suñu borom mu dox seen diggante ñoom ne leen jëru ngeen di jàng wala mu woyofal leen am jàng lool wala mu woyofal leen sax ñi jàng ba àgg si naa daanaka sax ab taalibe jërut muy jàng wala ku bëgg a àgg fenn wi nangam ak nangam yooyu yëpp pexe seytaane la rek ndax suñ delloo ci mbindam sëñ bi dinañ gis na jàng liñ ci bind ci ay téere lu yaatu la lu yaatoo yaatu loo xam ne yëpp day ne jàng mën ta ñàkk kon pexe bi ci jiitu nga xam ne wala gàllankoor bi si jiitu mooy iblis si boppam moo njëkk def gàllankoor pour nit ki maanaam jàng du nekk itteel ginnaaw loolu kon amoon na beneen gàllankoor boo xam ne suñ diggante la nekk rawatina sax ñun nit ñuul ñi mooy yi nga xam ne moom la jàppale nit ki pour mu jàng ci ñun suñ wet yi ñu féete mooy nit ku ñuul yëpp a jar mooy yëpp a jar li si mooy alal ci boppam nga xam ne da lay jàppale ngir nga dañ ko ko ñàkk a nosu ba nekk a jàppale nga jàng moom dañ koy coiffé ba muy yàq moom di ci bopp loolu dañ ko ñàkk kon loolu di dox suñu diggante ñu am xam-xam dafa bari bari waaye boo xam ne nii daanaka pour nga pour pour lim ko sax day jafe waaye loolu rek doy na doy doy doy na firnde ak ñàkk a comprendre gi ñu ñàkk a comprendre ban taxawaay la xam-xam am ci kaw suuf nga xam ne boo ci génnee mbirum diine ba mu sax nit ki lu mu mën a dundee ci kaw suuf te jàng mënta nekk mënta nekk wala dund bu doy waar lay nekk te loolu xam googu ndax dañu manque ñu nit ñun loolu dañoo manque ndax buñ seetale ne nit tubaab yi ñi ci ëpp boobu ñu ay jullit waaye fa ñu teg xam-xam ak lu leen xam-xam may ca lañu gëm ñun àgguñu foofu ndax loo fi gisee ñu ko yéen daanaka ñoo ko liggéey ñoom te xam-xam moo leen ko jox pourtant ñun loolu suñu biir moo ñu ko njëkk a bind alxuraan moo ñu ko njëkk a bind duñu wax toujours na leen seen xel mi dee leen ko jëfandikoo duñu wax toujours na leen xool leen ci kaw suuf ak kaw asamaan li si nekk si ay kéemaan ngeen mën koo jariñoo duñu wax ay gaz mi ngi ci kaw suuf duñu wax essence yi ci kaw suuf duñu wax duñu wax duñu wax te loolu mënuñu xam dégg boobu ne alquran moom du détaillé mais day jëm ñu war a mën a jóg pour yokk suñu xam-xam pour mën a génne loolu waaye déedéet dana toog di nelaw rek di jàng di raay suñu gën si suñu jël yaakaar na alquran loolu dama ko tax a jóg alladi jaala lakum min ashajari al-axdari naara fa isa antum minhu tuuqidun borom xam-xam yi nañu gaas si junj foofu ak essence ak yooyu ñu mel ndax essence ndax euh, ñi nga xam ne ñuy wax xam-xamu yi euh, nga xam ne dafa jëm ci wàllu xam-xamu mbenn mu nekk ci kaw suuf nga xam ne loolu lañ jàng wax nañ ni gaz yi li koy waral ak pétrole ak yooyu bokk na ci euh, mëdd boobu nga xam ne suuf si daana mëdd garab yi nga xam day toog ba yàgg xottiku garab yi dugg ci suuf ak nangam yooyu lépp lu nekkal foofu dugg ci biir wax nañ ne loolu bu yàggee ci suuf yàgg ci suuf ba yàgg suuf tàngaay woowu muy am di ci la ay essence juddoo ci la ay gaz juddoo ci la faxmul xajare yi li wax faxmul yi ci la juddoo nga xam ne moo njëkk na feeñ euh, essence hmm? ci la juddoo yooyu yëpp ci la juddoo ko bu yàgg xam ne loolu ay xam-xam la yu nekk suuf jàng leen ngir war koo mën a euh, turwe te taxul ñun jullit yi nga xam ne wax loolu sax ñu mën a fexe ba turwe ko ñun ay jullit ñoom fexe ba turwe yooyu ak yeneen ak yeneen kon nga xam ne xam-xam yëmut ne da ngaa war a jàng pour jàng xam sa borom rek donte nag moo jiitu ndax wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxid rabbina al ittifaq xam-xam bi war a jiitu moom mooy xam sa borom boo ko xamee nopp nga xam ni koy jaamoo waaye nag war ngaa jànget ba xam addina bi nan nga siy dunde ngir sa dund mën a tege ci yoon ak mën a mucc ci yéen yi nga xam ne day gàllankoor waaye ñun jullit booy seet ñaar yëpp lañ ci am jafe-jafe rawatina sax ñun nit nit ñu te li ñu ko gën a xañ mooy ñàkk gi ñu ñàkk mën a toog waxtaan ñun am na jafe-jafe boobu ñun suñu borom xam-xam pour mën a toog dong waxtaan waxtaan wax ne dañuy déggoo bu ñu dara mën cee dox jafe nañ ba si suñuy conférence sax wax rek ñu noppi dem bu noppee du am benn jeexantal si ñun waaye waral nañ waxtaanee benn waxtaan ak bu mën doon buñ ci jógee ñu étudier waxtaan woowu seet lu xaat yi waa ji waxtaanee lan lañ ci war a mën a jóg taxaw ci pour loolu mu doon wax wax bu mën ñu amal njariñ waaye dañ koy bàyyi mu jaar si nopp yi jàll waaye waxtaan lu waroon jur buñ paree ñu seet la ci am solo ñu ne bu subaa ci commencé tey lu mel ni tey xam-xam bi ñuy waxtaan tey bu bët seetee ñu ne comme nañ xool ba xam li tax tout temps yi amuñu xam-xam ak nañ lañ war a def ba am xam-xam kenn ku a joxe sa xalaat ñu daal di jóg nag taxaw ci loolu pour mu jeex bu ëllëgee nga xam ne leneen la yoo xam ne dañ koy wax rek lu jàll dëkk kon kenn ku ne xam ne mu nit ñi ñun ñi am nañ problème mu jàng lool benn bi wàllu màdd la mooy bi ma njëkk wax beneen bi sees wàllu fikr la xelaat dañ ci xelaat ci nanay def ba mën a avancé ak lan moo tax avancé wu ak ak lan junj yi ñuy junj nan la ñuy def man see jariñ yooyu dañ ci am jafe-jafe kon loolu ab jafe-jafe la boo xam ne nii bu jëm la ci wàllu xam-xam beneen ñaareel jafe-jafe am na mooy ñun nit ki ñuul li ëpp ci ñun xam-xam bi ñuy jàng dañ ko bëgg a jàng ci làmmiñu jàmbur nit ñu ñuul ñi ñi ci ëpp bopp daanaka mën nga leen la sax ci làmmiñu jàmbur la ñuy jànge te kenn ku ne xam ne làmmiñu jàmbur boo ciy jàngee li fekk amul ñaar fukki at jëm kaw làkk boobu moom mënoo koo dégg jekk ko na ko war a jekkoo ba mën cee jëf li nga war a jëf dëgg-dëgg mën cee gëstu li nga war jëfandu jëfandikoo xoolal ne am juróom-ñaari at ñëw di jàng ba am ñaar fukki at si njàng yi boole ko juróom-ñaari at mu am ñaar fukki ak juróom-ñaar mën a am nag euh, jotal mën a toog ak xelam mën a toog gëstu ba am xam-xam kon ne bis am xam-xam day mu am ñeent fukki at wala juróom fukki at jëm kaw daal xaaj kooku nu mu mën a taxawal kooku du mën a taxawal dara. buñ xoolee lu mel ni sinwaay wax nañ ñoom ku ci am fukki at ci am njàng wala fukki at ak ñaar li nga war a jàng jeex na li nga war a jàng ci xam-xam lépp jeex na amutoon looy jàng léegi kay xanaa pratiquer moo la dese léegi nag am jàng bu am fukki at ak ñaar boole bi ñu ñëw ci daara ji mu amul juróom-ñaari at boo ko koy xool ñaar fukki atam day daay manqué benn at dix-neuf ans lay am mu daal di dugg nag ci àddina commencé liggéey kooku kon ma nga xam ne lu gën daa gën gën daa mën naa liggéey juróom fukki at wala ñeent fukki at def mën na koo liggéey ñeent fukki at nañ cee liggéey lu bare bare bare bare ci kaw si ñun nag ci ñeent fukki at yooyu ngay am ba noppi ci ngay commencé liggéey moo tax daanaka doo def dara buñ ko seetee seen faatale yi nga xam ne moom la ñu naan yëpp biñ commencé ñu xam ne ak ñuy def dara màggal nañu jërët ñuy dund ñëpp xam nañu màggal nañu soo ko mën a def dara loolu nag li ñu ko teg mooy làkku jàmbur yi ñuy jànge puisque man damay wax sax nit ñi naa dama jàng tubaab wala dama jàng arab man loolu njuumte la danga naa tubaab laa jànge xam-xam wala arab laa jànge xam-xam wala anglais laa jànge xam-xam ndax xam-xam bi kenn moomu wa allama aadama asmaa kullaha xam-xam bi ñun ñëpp am ko du ñu ko jàngal si ab làkk mu mel ne luñ suulal nga jël ab pikk di ko sulee wala nga jël kudd di ko wala nga jël wala nga jël li koy sulee rek moo ci am solo loolu nag làkk bu mu doon baax na làkk boo ko sulee sa xam-xam mu ngi sa bopp dañ koy sulee rek waaye su fekkee da nga bi nga xam ne nii dafa jàng ba am xam-xam lu bon bon am na shahada ibtidaaya ndax boo si daa daara ci kër gi dem ci école bi am nga shahada ibtidaaya ndax loo leen gën a yor sa environnement bi nga ko laajee wax ko xale bi nga xam daa ñaari at bu ñëwee si école bi lépp luñ ko laaj mu toog jëmu bi kaye bi mu yor big bi mu yor lépp xam na mu ñëw nag ba agsi àndaale shahada nga jël shahada bi xëpp ko sànni ko na ko léegi commencé waatal boo bu la nee boo ko nee lii lu mu doon bu nga ne mu ne la bindukaay bi nga ne ko déedéet xalamuñu mu ne kon man xaw ma dara nga ne ko lii lu mu doon mu ne lii ab kaye la nga ne ko réer kurasati wala nga ko waxee ko si français xoolal dellu ginnaaw bi ko dellal ginnaaw te yëgoo moom jàngal na ba sori ci kër ga ay waajuram jàngalañ ko bii ak yu nekkoon jàngal ko ba sori mu ñëw wala ko yow xamutoo dara wéraan ko li muy njëkk a def mooy day yëngu moom daa yëg maanaam dafa yëg ak lor si boppam ak xalaat na mu dem ba xamul lépp ñu ne ko zéro la am nan laay defaat ba daabatal loolu

dessin kayoor yi nga ko bind si ab kay par exemple ndax lu kay lañu wax bind si bindukaay wala bit bind si daara muy école bind si ab taabal muy taabal bi wala yu mel noonu xale bi boo boobaa lu ko desee mën a lire doomu ko tee am xam-xam kon ñun seen xale bi boo boobaa mën a lire doomu ko tee am xam-xam buy mën a lire rek am xam-xam waaye nag su fekkee danga bëgg nga koy jàngal pour mu mën a leen arab bi boole si mën a xam arab bi li muy tekki wala français bi li muy tekki ñaari njàng nga teg ci boppam ñoo xam ne lépp daa bees sàq te xam gi doomu luñ soxla mu xam ko boobaa waaye làkk bi amul koo jëriñ nga jóge ba ñëw di ko jàngal julli wala nga koy jàngal jar ak a wabba oxydu riche lay yow am sax raas yi nangam nangam yu mel noonu loolu mooy la te yow da nga bëgg ko a jàpp doom jàpp doom nga bëgg mën ko est-ce que doo ñëw rek na raxas la ko gàllax ko sarax raxas xar kanam extra extra mu jeex est loolu muy gën a gaaw bu boobaa loolu est-ce que dina jaral bind ko sax dina ko aajowoo daanaka du aajowoo ndax yow fi ne soxlawoo foofu loxol arabia mu xam lu ñuy jullee nga soxla am lu ñuy jàppe nga ñëw bi bëgg koo jàngal njàpp bi ba kañ ba kañ te loolu ndax bu ñuy seetaan kon ñun nit ñi bu ñu bëggee bare ñu fexe xam-xam yi nga xam ne moo nekk ci français te war koo jàng wala mu nekk ci arab bi ci ñuy jàng arab dañu war koo jàng ñu taxaw ko def ko suñ làkk bi doxal ko def ko suñu làkk bi su ko defee bu boobaa suñu njaboot muy suñuy soxna ak suñuy doom fekk ji doom ñuy soxla si ñoom ku ci fekk ji jàngal sa bopp amatul amatul amatul amatul léegi ku ci fekk ji ba nga koy jàngal sa bopp ndax lépp ay olof lañ ko def te li ñuy wax lañ koy xam bu boobaa boo rek lañ la jàng maanaam pour parler français rek. te yi nga xam ne bu jàng par référence danga koy jàng waaye xam-xam yëpp danga koy jàng salaat bu dee arab ngay jàng luxal arab yi rek lañ lay jàng te kenn ku nga xam ne luxal arab yi bi daanaka ma ngay euh, jëm ci wàllu grammaire bi la si jëm ay maani lay doon ay yeneen yeneen yu ci aj yëpp ci luxal lay jëm rek waaye yooyu bari am solo

waaw moo ngi toog xaar kenn ku ne naa xaar diw naa xaar diw naa xaar diw loolu ba kañ pourquoi loolu sëñ bi digal nañu ko bu yàgg ñoom nañu fay seen yoon diw sa waatul gis bi sa waatal fata wa su al fam ñoom ne yéen sama mbokk bu leen dox mën ngeen a daje ñëpp waxuma daje mais da ngeen dawaw ñëpp ñëw na bu leen tax ne da ngeen war a nekk al topp ci tubaab yi al topp ci naar xool leen ca kanam ngeen war a jiit ndax nit moom moo mooy seet ci li feeñagul moo wax moo jiit ci àdduna wala waaye civilisation ñoo ci jiit wax nañ ne mbind ñu njëkk fee nga xam ñu moo la bind nit ñi ñoom ñu nekk ak Égypte ñoo ko njëkk a génn Cheikh Anta leeral loolu mooy nag te buñ xoolee ne ñoom seen làkk daal ñoom làkk nit ñi ñuul lool ak nit ñi ñu ci nekk léegi te li nga moom ñoom ñëpp repéré ba am seen biir lu ma amul moom ñoo fexe ba am suñu fi ko lu tax xoolal Cheikh Moussa Ka ñu mu yaxal ci wàllu olof te sama classe bi genn wàll bi mosuñu ko gis sax yenn yi siiw rek lañ xam sëñ Bay Jaxate noonu sëñ mu dem def na benn tafsiru Quran ci olof ñu bari xamuñu ko ngay ñor ñor ci yoo xam ne naar ñoo ko bind te yenn saa yi nga si jumla boo xam sax na nga war a yow comprendre te kee lu wax ba xam mais mu euh, fekk bi li ci def na ay woon solo xoolal nag ay doon su fekkal dañ koo bind ñun moo xam ne suñ tuntànk yi ñoom ñëpp nañ koo dégg def ko ci ay kaset yoo xam ne suñ tànk dañ ko mën di am na si ñun bu paree dañu pare Moustapha Diop a ngi dama mokkal ci ay olofal si bay jàpp ak yooyu mag ay téeméer bay jëm ko su fekkee ci fiq la doon du nekk faqi ah kay te loolu boo ko jublu rek du ko jàngal sax da koy jublu rek mais ñu bàyyi mu nelaw te xam-xam bi rek lañ soxla xam-xam bi lañ soxla mais laa ko or bi Baas Ahmad Baas naa ay taalibe am na taal bu mu taal Ahlu Badr boo ko digloo di nga xam Ahlu Badr seen tur yëpp presque ak nañ doon xeex ak bañ a xeex ak ñu doon reyal rek ñetti at yëpp ci ko olof nga xam ko xam xasitu Badr naa nga yow nag ñu jox la téere taarix xasitu Badr nga fanaan ko ngeen bu wërsëg te boo xëyee boo muy da ngay naq naqar nga bañ a si arab bu wërsëg te boo xëyee da ngay naq naqar lan moo ko jar lan te xam-xam rek lañ soxla nga xam ko xam-xam boobu lañ soxla nga jàng ci laatub jàmbur xam ndax kenn ku ne dangay jël xam-xam bu bind ko sablaat rek dangaa dem fa xam-xam ba nekk ba bu sotti ko def ko si di ko jàng mooy ma dem fañ fañ tànk war a jël xam-xam bi def ko sama blaat su boobaa samay samay ñun damay soxla si ñoom nit ñu mën a wér sama bind rek ku si mën a lire olof rek jàngal sa bopp bu ñëwee te bu tuuti xale yi ñoom day jàng classe bi comme si wax lu ñuy naafila ngoon mu wax la mu ne ñaan naa nga mel ak ñuy naafila ku ko jëlee di ci am nangam di ci am nangam di ci am nangam. lu tax mu xam loolu suñu changement bi moo bind ci olof la ko bind te moom mën naa lii olof bi te bu ko lii rek a jàpp mais xam nga bu doon ko mën ku nekk sa arab wala nga nekk xam lañ xam ne surtout taal nañ ñoo leen tënk li tax amuñu xam-xam noo leen tënk. noo tënk suñu bopp ñun ñii kasaan fi mu ne koo fi gis muy liir wala mu soxla dara mu jiit yaa ngi bu nekk bu leeree tuuti xol mu jiit bu leeree tuuti xol mu jiit lu tax làkk bi muy jàng moom la mokkalut man ko war a mokkale te làkk boo nàmput ni ko olof di waxee teel koo man lool dafa jafe waaye làkk bii ñu nàmp su fekkee taxaw na ci xam-xam yi ñun ñëpp leer ñuy géej suñ soxla yi bu boobaa la doon tax xam-xam mën ngaa liir bu boobaa ñoom nañoo liir li ñuy liir ay olof nag bu ñu liiree dañ koy xam ko si ay téere def ko na ñu ciy dox nag ki paabu bi nga bokk te ma bi mbindam latin ay olof la mbindam olof mi nekk si lañ ko waaye wax nañ ne li ci ëpp nañ ko léegi ci xam-xam nga xam ne boo soxloon fekk tey te mën a lii lii moom boo demee loo fekk mën na mën nga koo xamal sa bopp du jar sa wéy ab jàng xoolal nit ñuy jàng ma jàng nga mën a jël ay jël waroon na fii wala deuxième de sifa di ko jàng ñaari at muy door bu bu ci lu ndax arab li muy waxee ak olof li muy waxee dafa bokkut mais su fekkee ci olof lañ ko bind ba mu leer suñ la ko tëralee benn yoon amul looy laajal soo demee ci dëkk bi amul loo si amul loo siy laajal comme man nga moom moom boo jëlee la ko waaye ñu leen amul laajal man dama si am expert ndax maa ci jàng ay nit waaye saa yu ma liiree ba mu àq ma ko liiree ba liiree dama ko naan est ce que am nga lu ñu si loolu si mën a déedéet ma ne ko expliqué ma mu expliqué ma xam ne leer na dana ko si souvent boo ñëwee da koy dal mën na ko tari bi nag jubluwuma boo ñëwee nga tari ni ko bindee ma tari loo xam ne bu ñëwee ni ko bindee koy tari mais yenn saa yi bu ñëwee ay olof yu bokkul lay indi wax ñoo xam ne dana ne masale bi ma ko jàngalee dem xam na waaye bu boobaa loolu rek dañ soxla woon ci moom nag waaye jëmmi tari affaire bi amul solo kon loolu am expérience li ñu may man dama si am exemple day fikra boo xam ne tamit yàlla moom moo si natt ndax ba may jàng ay quatre-vingt-trois wala quatre-vingt-deux fikra bii ci lañ ma si njëkk ñëw sama xel lu tax ñun ñuy jàng làkk jàmm ni te ñu mën fexee ba am suñu làkk bopp mu ne liñ njëkk a manqué muy mbind ndax lu tax mënu ñu am mbind di dox ci loolu di ci xalaat di ci xalaat ba ni ma jàng ba jóge ndaam dem xalaat boobu nekk sama bopp ba ay deux mille xëy na ma commencé di ci xalaat ba commencé benn téere bi ñuy wax boo xam ne maa ngi ko tuddeewoon ngir euh, gën gaa juróom-ñaari at yoo xam ne topp naa di seet lan la ñuy fexee mbind ñi fi nekkal muy mbind olof ñu ko mën a fexee ba mu mat sëkk nga xam ne boo koy jàng natt nag toll na doo ci am boo du ci am waaye baat boo tiim bi nga xam ne nii lañ koy liire lu nag juróom-ñaari at topp naa ko daanaka ndax ñi ma ko commencé la woon ñi ma ci jàppale dañuy dem ba mujj ku bàyyi ko man ak ndakaaru ni mu xate loolu moo ko yàggal ndakaaru ni mu xate mu bëgg ko moom ba facteur bi àgg si kàttan ak suñu borom ñu génn ko waaye moom la bind ko ñu bind moo xam ne tamit xëy na mën naa tasaaroo waaye wóoru naa ko wóoru ko buñ paree fi mu nii ci yi mu xam ne nga xam xam la loolu ci bëgg a bind mën ko ci bind ndax dañ ko si sóoraale dañ cee sóoraale loolu mënuñoo bàyyi te dañ ndax xam-xam yi ci bari loolu dañ bi nga xam gën a jege moo tax dañ ciy sóoraale ay arab yoo xam ne boo bëggee bind yenn sooy tubaab yi duñ ko mën a bind boo ko koy bind yow so yenn son anglais yi dañ ko mën a bind yu mel ay en ak je ak xeet yu mel noonu dañ ko see sóoraale ngir pour tànk bi suñu pour tànk bu demee ba mën a suñu bind nii bu ko son yooyu nga xam ne da ko daan jaa jaaxal buy jàng français wala buy jàng anglais fekk nii nan na ko ci ab làkkal boo ko déggee ci français bi bu ci jógee da ko yomb buñ ko nee je ci olof moo nekk nii ci français day yomb ci moom yooyu yëpp dañ ko ci sóoraale ba feeñ na ci nga xam ne tey boo rawee ba mën mbind moomu ma lay wax buñ lay jàngal français bi yomb lay doon ci yow ndax son yi nga xam ne moo da nga koy gis foofu ndax ñu mel kon nag a ba fii ne dañ lay jàngal en donc boo bëggee bind ran wala kan wala fan da koy mën am ay jë ay chaq yooyu da koy mën a am bu baax yooyu yëpp dañ ko ci suuraal liñ bëgg mooy dañoo seetlu ne suñuy tout dañuy yeex a am man-man da ngay jàng ba mokkal alquran jeexal alquran bi yëpp te doo am benn man-man tey buñ la woon ne defal conférence doo mën a def conférence doo mën a wax dara puisque doo am foo ko ndax déggoo arabe doo mën ko si bind déggoo français mën ko bind te sab làkk mënoo cee bind dara boo demoon ba bind si olof sax boo ko tëjee doo ko mën a léegi ndax olof bi nga xam ne moo fi nekk ñu fekkal daa bari lu manqué loolu nag du nañ lu bari waaye seen dox di dox di dox si lañ dem ba dabaatal lépp français bi ñu ci gën a naw si war moo ko mottali te ba lay des na français bi ñu ci gën a naw si war mottali si lu bari te ba léegi France dañuy wax ni ñoo gën a néew néewaat bind ndax li ci ëpp ay xiyaas la te loolu mën naa ñàkk li ci ëpp ay xiyaas la baat bi nii la rek xas waa amut kii naan naan ñu jàng xam nañ loolu anglais waxaale ma ko moom anglais moom waxaale ma ko ah anglais ah bi dañ koy jàng nii fii ëllëg nga jàng ko nee fee kon ba tey walla ba amu ci kon buñ xeet suñ bopp na rek làkk bi manqué na waaye garaaw nañ ko bàyyi déedéet dañ koy ji ma mottali ba mu mag ñu gën a am capacité mën a taawu xam-xam xam-xam ñu taawoo ko ñu ko ñëpp taawoo ñu ñëpp fexe ba fekk fa xam-xam nekk ñu jël ko dugal ko seen a làkk gaw ko am fuñ ko takk ñuy ñu fexe dem fa xam-xam ba nekk ñu jël ko gaw ko si seenu làkk gaw ko si seenu bi ñu takk ko ku si bëgg amoon xam-xam dem xoolal ko sa bopp man nii di wax ak yéen sax am ne su ma ko bëggoon am téere yi ma jël ko boo mën naa see fanaan bu bët sëdd du ko mais buñ ko bindee si olof danga ñëw jaar jàll rek puisque olof dama ko naan te dégg naa ci lu bari nag loolu dina am nañu lu bari loo xam ne ni mën naa see jàng waaye fii nag may bi mat mat na war a ko xaw ma si dara waaw li tubaab bi amul fulla fekk fa xam-xam nekk mu jël ko def ko ci ab làkkam ba koy jëriñoo tubaab bi euh, anglais bi def noonu iranien def noonu chinois yi def noonu sàppale yi def noonu waaw ana nit ku ñuul nit ku ñuul da am si li ñu jàng ci France sax tubaab jàng ñu waaye nag li ñu wax boo bàyyee sa fi nga war a toog boo demee ci ci ci toogu jàmbur boo ñëwee wala sax dañ ne boo si ko ànd boo toog mu toj waaye déedéet boo ñëwee da ngay fekk boo am place mu ko am àddina amul ci place kon daal. loolu ñu wax foofu doy na lu ma doon commencé mooy dañu wax ne am na ko déggan tubaab lool ci ñi fi nekkan kalaas ak Senghor geek ak ñooñu belees ak yooyu parce que du belees moomu sax la dégg naa mu am gan ak tubaab bind tubaab bi neex mu ñëw mu jàng ko ba mu àgg tubaab bi ne ko ah sama waay dégg nga tubaab lool mais nag doo tubaab man muy naa tubaab xoolal boobu xeer xoolal boobu saaga daal dama yàlla jégal ci baat bi kon war nañ ko doo dara li nga wax bala moo amul solo bu doon seeti bopp waaye ci man nga jànge loo xam maa la ko def sama làkk moo la ko jox loolu ñoo kii daa am ay lijaas yu bari ci ko limal di ko limal mun na ko lii ngay wax yëpp amul solo ndax man mii nga doon jàng man mii nga doon jàng te noonu mu amee ci tubaab bi la amee ci jàngatu arab yi comme ñun ñi nga xam ne ci tubaab bu arab lañ jàng loolu jàng-jàng moom naar bi du ma tënkee fenn ñun wut suñu yëf yi moom ñi nga xam ne ay jàngkat lañu tene fii muy ustaas ak ñeneen ñi dama leen di ñaan ngeen jàppale ma fii ak déwén ngeen jàppale ma ñu ñëw ñu tere suñu fi bopp gars yi bu ñu xeeb suñu bopp gis nga nangam ma nekk France nangam ba nekk Amérique nangam ma nekk feneen ba keneen lañ créé ba am sax ay États-Unis yu ne noonu ñooñu ak ñun ñii dañu ñu moo yem te duñ seen borom sax ndax koo xam ne ba muy créé la muy ngir yàlla taxu te mën naan daa sàngara ba maan bi soo ko di créé la muy yàlla jàppale ko jàpp bokkul ki nga xam ne dina jàng alxuraanam di jàng xasaayam ak yéene ju rafet ñëw ba ko créé bi bu koy créé bi sotti waaye na ko yëg nag waaye ñun dañoo yëgul suñu bopp ñun nañ ne ñu jàng arab ci ginnaaw naar yi rek lañ war a topp ñu ci ginnaaw tubaab yi lañ a ñu ngi lekk ba yàbbi ñu jël set loolu ba kañ loolu ba kañ tëndoon ay nit comme ñun ñun xam li ñuy xam nga xam ne dañuy jàngale ko tubaab ëpp ko xam-xam bu dee tubaab ngay jàng bu dee araam noonu ndax ki ñu daan jàngal di wax taalibe daana am naar mu sama raw naa ba bàyyi am naar mu sama raw daana wax ne bi ci naar yi jàngi woo ko ndax bi may dem la jàng lépp xam naa ko soo ko def mais anam naa mën a créer yëfi boppam kon gars yi nañu fonk suñ bopp ñëw créer fii suñ yëf yi bopp fexe ba xam-xam bii ñu xamal ko si ci arab bi ñu bind ko ci ay olof jox ko suñ tuut tànk yi ñu jàng ko am xam-xam balaa déwén fii ci àllarba nag àllarba ju jot fii ñu ngi ci jàngal gone yi dugal nañ ci njàngal olof dinañ ci dugal tam ay addis ak yu jëm noonu ak lenn si nasaraan doon da dégg ñu sax tubaab waaye ñu yóbbaale ko rek képp ku ci bëgg a bokk ci tuutànk yi boo ñëwee mën ngaa ñëw ku ñu bëgg a ci lii nga wax it bu dul dara ngay traduire si mbind mi nga mën si olof nga koy traduire yenn làkk yi yenn xam-xam yi nga andil na bu ñëwee ñu bind ko suñ mbind mi ñu teg ndax liggéey la boo xam ne xëyut sotti waaye nag nañ commencé rek bind naa si ñetti téere nag téere bu njëkk bi pour mën a lire la maa ngi ko tuddee junni wane ne nit nit ñi bu fekkaan dañ doon nelawit xanaa war nañoo gindi bu ñu mënta xool gindi suñu bët war nañoo gindi xam àdduna bi mu ñu jéem a beneen bi si tasawur si xaar bi laa jël bind ko ci olof tey am nañu ko jàng ñii tey su ma leen woon fii nit ñëw di ko tawi ñu si lañ lépp nañ yéen ndax dinaa la wax farataay julli yi ni mu toll ak niñ ko tënkee tënkee woo xam ne buy noppi yow sa bopp sax di ne nii niñ ko xamee askan dañuy bëri élèves yi jàng ci arab bi ku ci wóolu kenn na ñëw taxaw fii du la ko tari la ko tari wala dina ay napp napp yu bëri te ñii da ngay bind jox leen ko donc bu ñu demee dañ koy ñëw ñëw taril la farataay julli ñaata la su ne julli yi noonu lañ koy def li yàq julli yi noonu lañ koy def te lépp si langue wolof lañ koy wax te loolu rek lañ ci soxla woon nga xam ne kon yow boo ñëwee di jàngal olof euh, gone olof olof pour mu dégg olof donc pour mu mën a lire olof bi donc moo la si ñor bu xasee mën a lire rek jeex na bu xasee mën a lire donc baax na loolu nag da ngay seet man mi xam ne mel na man daanaka maa si maa si nam na bi su fekkee am naa ñaar ak ñett yu nekk sama côté ñu bokk di ko def kon ba léegi fu ñu ko waxeeti kon ba léegi am nañ ay téere téere yoo xam ne jël nañ ko ñetteelu téere bi daa amagut aw tur ndax ci biriñoo la toll doo léegi waaye njël bee nag al jawharu li si sëriñ bi wax njëlbéen bi yëpp bind nañ bind nañ ko ci olof am nañu ko jàng ko jeexal ko daanaka loolu nga xam baabu saani dama moo si ñëw te boo ñëwoon tey wax leen lan mooy jëw man la naan jëw mooy nàngam firi la ko ak ya si ko jàng ni ngeen xamee jot may ma ci détail kon liggéey boobu laa bëgg comme ni ma waxee bu ñu defatee waxtaan ba noppi ak bu mu mën doon nañ ci jublu fii mu ne mën na fee juddoo ndax daa am barke sax Mouhamadou Mourtala teg na fi ab tànkam ñaani sëñ Saliou yi fi nekk du jeex te yéene jëm ci yéene dafa rëy moo taxawal islam mais dañuy nelaw rek dañuy nelaw rek jéemuñu dara sëriñ bi moom li ñu mën a def na ko moo dajale noonu xam-xam bi takk ko ci benn buum la xawan ci jamono jooju muy arab mu bind ko ci teg léegi nag ñun li ci def nañ ko jiima nag tàqar ñu ko nag dugal ko suñ làkk olof bi ba ñëpp mën koo miir bu ko defee suñ sax léegi dootu ñu leen xaaral naa leen mokk leen français soo ko mën a jàng wala mokk leen arabe soo ko mën a jàng dañ la naa fer leen moo gën a gaaw fer leen ijji si sablaat rek am xam-xam moo gën a gaaw kon problème yi ñuy jànkuwanteel yëpp day daal di jeex loolu soxlaat yaa ko jàngal sa bopp wala ko amuñu gëm-gëm boobu lu tax nit ñi ñu gëm ne moom daa war a topp rek wërtu amee fi boppam mais mën ngaa jéggaane waaye na fekk nga am sa amoon sa dund bopp ba nag soog a jëggaani kon ñu ngi siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp di ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp waxtaan bi am na dégg wax dëgg yàlla xam ne tege na ci yoon teg na ci xam-xam te it la ngir mën a dox jëm ca kanam ndax taw yi nga xam ne yépp indi na ko fi wax na ci gàllankoor yi nga xam ne xam-xam mi ngi koy gàllankoor ngir mën a jàll si ci nit ñi wax na it ci solution yi nga xam ne buñ ko toppee wax dëgg yàlla mën nañoo génn ci jafe-jafe yi tey lu wér wér la la ndax boo xoolee ñi nga xam ne tey ñoo gën a développé ci àdduna yi sikkuwut ne ñoo xam nañ ko ñu ngi ko jële ci arab yi waaye bi ko jëlee ci arab yi dañ koo traduire ci seenu làkk moo tax tey ñu ñu àgg te loolu lu wér-wér la tubaab yi kenn ku ne xam nañ ne ci aar leen xam-xam yi ci ëpp wàllu ay borom xam-xam mag la ñuy tuddal neen di la tuddal ne Avicenne nga xam ne ku siiw la ci tubaab yi kooku mooy ñu ngi ñu Sina lañ koy wax te daanaka foofu tubaab xam xam-xam yi xam yëpp ci ñoom lañ jógee la traité du siècle la kon li ñuy wax ne lu am solo wax dëgg yàlla xam ne buñ ko doxee wax dëgg yàlla mën nañ cee jariñu tey. Euh, nit day nangu critique bu ñu ko critiquer day nangu euh, doonte am na xam-xam bi fi nekk yooyu kenn kenn du ko bàyyi waaye rek mi def li alquran doon wax naa wa min quwa wa min ribatil xayl turhibuna bihi aduwallahi am lu am solo lañ wax bi ne alwaai man yaarifu wa yattaxid mawaqif maanaam ku am yëg-yëg la ku am wala ku xam ku am vision mooy ki xam ne day xalaat bi ñëw ba pare jël ay matuwaay yu ma ngir mën a dox jëm ci kanam kon waxtaan bi am na solo waaye dañuy tënk fii rek xam ne guddi na di ñaan suñu borom defal ñu ci dégg ak topp ci barke borom Tuuba asalaamaaleykum